صاروا عقابا شني وقالوا لماذا فعل ولم لا وهل لا بهذا لا لا لا فما إن يقال لماذا فعل ولم لا وهل لا بهذا سكن xale yi jërë ngeen jëf yal na leen yàlla fay ñu continuer ñu wax ne saxaaba yi sayiduna muhammad ñoom ci isaar lañu yeggoon lan mooy isaar mooy dimbaliku la tane waaye yëg nga ne am na problème ci jamono jii nga ne diw daal problème am bi dinaa ko rek la ngir jëmm yàlla ba benn bi nga yor ci ñàkk nga ko gën a yéene ci yow mi ko yor wa yusiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasatun wa man yuuqa shuxa nafsihi fa ulaayika humu lmuflixuun moo tax sayiduna muhammad romb na benn nit ca kaaba ga waajaa ngi jàpp ca kaaba ga di ñaan naan asaluka bi xurmati hada albayt an taxfira lii ñaan waa man la akay tàmbeedu tàmbeedu tàmbeedu naan yàlla maa ngi lay ñaan ci xormay kaaba gii nga baal ma fa qaala lahu sallallahu alayhi wa sallam yaa abdallah sal bi xurmatika fa inna xurmata almumin azamu inda allahi min xurmati hada albayt waa ji dafa jàpp ci kaaba gi naan yàlla maa ngi lay ñaan ci xormay néeb yi nanga ma baal say bakkaar samay bakkaar yonent bi woo ko ni ko ñaanal ci sa xorma yow xormay julit bu gëm yàlla moo gën a màgg ci yàlla ci xormay kaaba gi waa kon ñi dem bay contesté naan kenn warul ñaan ci xormay nit yàlla nañ jàngaat xadis bii man li may wax làquma ko rajo laa yor ci kaw laa koy wax xadis bi xadis bu wér la ak tarxiib wa tarxiib génnee na ko nasaa yi génnee na ko tabaraan yi génnee ko cheyxaan yi génnee ko yonent bi fekk na nit ca kaaba ga muy ñaan ca xormay kaaba ga yàlla baal koy bakkaaram yonent bi ne ko ñaanal ci sa xorma yow jullit bu gëm yàlla xormaam moo gën a màgg ci yàlla ca xormay kaaba gi ma ni waaw ñi naan kenn warul ñaan kon ci xormay nit yàlla nañ jàngaat xadis bi yonent bi nee na fa inna xormata almumin azamu inda allahi min xormati hada albayt xormay kaaba ga la muy rëy rëy rëy rëy xormay julit bu gëm yàlla ko gën a màgg te loolu sayduna muhammad moo ko wax yonent bi nag bi mu waxee loolu waa ji ni ko ya rasul allah inna lii danban aziman man kat damaa am bakkaar yu rëy yonent bi ne ko wama danbuka lan mooy sa bakkaar yooyu mu ni ko inna lii maalan kathira wa inna maashiyati kathira wa inna xaylii kathira walakin arrajulu ida ma saalani cheyan min maali la utihi cheyan waa ji ne ko man de dama bare woon alal lool bare woon naay xar bare woon naay bëy waaye li ma naqari ba ma jàpp ne bakkaar la moo di ku ma mas a diis soxla dama naan la duma la jox tus ku ma sa wax soxla rek dama naan la dama liggéey soo bëggee dara xam nga lu ko yonent bi topp tontu yonent bi ni ko jógal bul ma lakk ci sa safara si jógal bu ma lakkaale
الله لا يخطره جار ولما جار من مجوس
nee na annaaru safara laa yaxriqu du lakk aljawaada ab tab walaw kaana aljawaadu almajuus doonte sax tab booba majuus la safara du ko lakk xam nga nu muy def bu tabe ga wéree ca xol ba dëgg-dëgg yàlla da koy baaxe mu tuub ba lay dee
من بينكم ميتا يدور الجماعة يبري أبي الجود من إيرانا. من بينكم ميتا أجرى أبي الجود من إيرانا. ومن
tab sooree nag naari teg ca jege naag bur yàlla ak jannaatu def leen ni yenn ba nee na ku nay day dand aljana waxoo kam mi niira mu ni ta nee na ak tab soore nag naari tabakat jege naaj def leen ni yenn ba nee na ku nay day dand aljana ak mindëf ya nabi nee na ab tab soore naag naari teg ceebat kat jege naag waxotaatal yennan baanee na ku nay day dand aljan waaw waaw ak yàlla ñoo ko tànnee ni mu ni tànnee na ak teg sooree nag naari teg ca jege naa bur yàlla waaw waaw jeg sant bi def leen nii yennan baanee ku nay day dand aljana waxoo kam mi nii mu ni tànnee na ak teg soore nag naari teg ca jege naa pour yàlla waaw waaw jege jannaatu ridwaana yeneen ba ne ku nay bay dand aljana mu ni baane na ab tab soore nag naari teg ca jege naa pour yàlla waaw waaw jege jannaatu ridwaana mu ni yonneen baanee na ku nay day dand aljana nee naa te nee naa ak tab soore nag naari teg ca jege naag bur yàlla waaw jege jannaatu mu ni yonneen baanee na ku nay day dand aljana ak mbindeef ya woo kammini mu ni teeneena ak teg soore na ngaari teg teg jege naag bur yàlla day way jege jannaatu ridwaana fa tabarakallahu gis nga waa jooju ñàkk gu mu daan ñàkk dimbali ku sonn daan ñàkk xett li moom la jàppe bàkkaar mu wax ko yonent bi yonent bi wax ko ni ko laa taxrit nii bi naarik bul ma lakk ci safara bi nga jëm ëllëg fa qaala sallallahu alayhi wa sallam walladi nafsi bi yadihi law sumta alfa aamin وصليت ألف عام ثم مت لئيما لأكبك الله في النار yonent bi def ko ne soo wooroon junni at naafila junni at ànd ak faale woo mbindeef yàlla yi doo leen dimbali ci li nga leen tane booy faatu rek yàlla dugal la safar
اهدى وابها واهبى نعم رسول يدا من الدرار من البدرين من الديم جنينا بحر العلخ جاورها كوكا نيان ممايلا بوتو نيمو بال moo gën a tabe ñëpp le foor foor bu nawetee buy taw bu nooree mu taxaw loxo ndoy joor rasulilaay day dotti noor ak nawet kon yemino baxru loola xëy jaaw raagaañu jooju waaye tabe ñu tax مستضاع خسم أرساخ الخلائق على يدي رسول خسم أرساخ الخلائق على يدي رسول مستضاع يوم العواج قد خسم أرساخ الخلائق على يدي رسول ما جعلنا بها وهما لنوالي الدن من الدراري من البدرين من الديم كن يمينا بحر الآبخر جاورها ولد العصا منا لما سوى النعم
تبارك الله
يا محمد الأمين من هو أقبل الورى خلقا dikk de soo ko teñee mu bala soo ko ñaanee mu may la xalxan wa xulxan soo ko teñee mu bala soo ko ñaanee mu may la ku kablaay baayam aminaay yaayam abdul tali bay maamam ee gaa yi xuraysin xam ngeen waaja danay koy nabiyun danay ko rasul am na awalu muhammad am na axi muhammad أن النبي دا بارنا دا أن النبي رسول خير عبد وسيدي المكاي خليلا حبيبا مثل ولسيل نبي رسول خير عبد وسيدي المكاي نبينا يا رسول الله نور نون دني دنيون du ñëwee bëgg ñëw yow doo ngay waaj una bu kay ajalay salilaadi sawi mu maasilu lu tax du ñun ñi moom la ñu jox grade bu ñuy wooye awlu fi niyaam moom dong nga kam bu lëgee weer kabul braax moom dong nga yar وأخشى والحمد بيد يميني وجبريل عن يميني وميكائيل عن يميني وإسرائيل تحت رأسي وخالد عن هات مركب النبي نانا نبي يا كلب أبنا وأبنا عبد المطلب مانو كان تبعي مانو يميب ولا جاه كان يمينه
dañ ko yàq dañ ko yàq nga leen ñu waxtaan waay jërëgéen jëf jërëgéen jëf jërëjëf jërëjëf rafetlu nañu way yi rafetlu nañu way yi waaye waxtu yooyu ñu ci faru ne rafetlu nañu way yi waaye waxtu yi moo ñu ci faru waaye jërëgéen jëf jazakum lana xayran waaye waa jooju daal li ko yonent bi tontu mat na déglu daf ko ni law sumta alfa aam wa salayta alfa aam summa mitta la iman la akabaka allahu fi naar soo wooroon junni at koor naafila yemoo ca nga julli junni at di naafila waaye yaa ngi dee ci égoïsme yàlla dana la dugal safara la iim mooy nit ku soxor ko xam ni du dimbali du yërëm du xettali bawul kenn xel boppam rek ananiya ananiyatu égoïsme alquran nee na ci kéeféer la bokk waaw araayta alladi yukadibu biddin fa dalika alladi yadacu alyatim wala yaxuddu ala taami almiskin yàlla daf ni sayiduna muhammad ndax doo gis kii nga xam ne mi ngi ci kaw suuf ba pare di weddi bés penc ñu ne waaw weddi bés penc gi lan la mu ne mooy kuy dàq njirim te du dimbali miskin du dimbali miskin du dimbali ku sonn moo tax yonent bi wax benn xadis nee na waman yassara ala muasirin yassara allahu alayhi fi dunia wal axira wallahu fi awni al abd ma daama al abd fi awni axihi nee na ku gis ku nekk ci jafe-jafe nga fexe ba mu am yomb-yomb yàlla yombal sa àddina yombal sa alaxira yàlla du dañ mukk di dimbali jaam bi li feeg jaam bi dañul di dimbali mbokk julitam moo tax saxaaba yi ñoo gën ku dul ñoom ku dul yonent ya doo yonent ba saxaaba yàlla gën xoolal saxaaba yi ni ñu dunde Seydina Aliyun ibnu abi talib karamallahu wajhahu ca ndogoom la nga xam ni siiw na ca ndogoom lu siiw la ah defar luy niroog ruy teg ca ay mburu woor ba ngoon bëgg a ndogu fatimatu toog seydina xasan toog seydina xuseynu toog ba dara desul lu may ndogu benn njirim ni jaas ni man de dama bëgg ku ma jox lu ma dundee ngir jëmm yàlla mu yëkkati ndogu la jox ko moom diñe te dafa yendoo woor fande ci ëllëg sa mu préparé waat lu mel noona ba dara des lu may ndoguwaat googu yoon miskin ni jaas ni man de dama bëgg ku ma dimbali ma ndogu ngir jëmm yàlla mu joxaat ko ndogu la ci ñaareelu fan ba ñetteelu fan ba mu defaraat lu mel ni lam defaroon ba dara desu lu may ndogu asiir ñëw mooy ku ñu tëj kaso ba door koo tijji googu yoon nag dafa joxe ndogu la ba pare xëm waaw waa kër ga xëm nit ñi ñëw sotti leen ndox yàlla wàcce laaya ni innama nutimukum li wajhi llahi la nuridu minkum jazaa wala shukura wa yutimuuna taama ala xubbihi ñu jox ko miskinan wa yatiman wa asira nañ di lii te dellu si commencé اختار في القدم صليا يا إلهي وجزيا مولانا عنا محمدنا مختار في القدم صليا يا إلهي وجزيا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم صليا يا إلهي وجزيا مولانا عنا محمدنا المختار ملفا جزيا ابدا عنا محمدنا نحترى في
جردنا ولا محمدنا لغيت أن لقيت مولاي صلي يا إلهي وجزيا أبدا من عنا محمدنا المختار خلقنا صلي يا إلهي وجزيا أبدا محمدنا المختار خلقنا آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زورة أم الملكة العامة صليا يا إلهي وجزيا موتنا عنا محمدنا لقيت أن لقيت مدى أمنة بنت وابن ابن عبد مناف ابن زهرة أم المغتاب العام المختار في القدم يا ابنتي لا من وقل في انتظارهما أتكات قيل جن الأم وأبيهم إنك لا بضرب الكذب كتاب هما أتكات قيل لقيت يرنا لقيت موضى ابنك لا وقل في انتظار هما أتكات قيل جن الأم وأبيهم أتكات قيل سند الأم وهب قال لا غير ذلك على كان سيدا قومي جاءنا فردا لعصر غير ذلك ولا سيد قومي كما جاءنا لقيت أن لقيت ما غير ذلك على فلسي غير قومي كما جاءنا والبني عسل غير ذلك فيك ما جاءنا يا جرى يا جرى يا جرى غير ذلك كما جاءنا لخيت يما لخيت مولا غير ذلك على كنسي سيد قوم الجزاء وجاءنا فرض العسر غير ذلك وكان سيد قوم فيك ما جانا لخيت يما لخيت مولا غير ذلك على كنسي غير ذلك سمت بدف لني لخي ضرات أمه هاي أمه آمنة محابين فوق البرات يا درة تلقيك دبة محق أم دبة لها أربع مولود مولود مولود بالله وغيرك الله لها لها موضوع موضوع موضوع ويدبة محق الأم دبة لا لا أربع نظر موضوع موضوع دبة ومحق لا لا ولا غير في من رسول جاء من يوم المولد مجنجل قال أهناه عينا حبيب الله مرة من رأسه جاء من يوم المولد مجنجل قال أهناه عينا حبيب الله مرة من
loo laaya bii sunu borom wax ni wa yutcimuuna taama ala xubbihi bal leen ñu waay ñëpp àgg suuf jaabante bi bari na torop ak waxtaan wi una taama ala xubbihi mooy am looy jox nit te ëpp ko ca soxla waaye jëmmi yàlla jaral la nga xañ loolu sa bopp ngir sore kii nga jox ko nag miskiinam mooy ku ñàkk miskin ci sharia mooy koo xam ni li mu am mënu koo dundal ren ba déwén kon day ay miskin bari na ci Sénégal miskin ci sharia mooy koo xam ni li mu am dundalu ko ren ba déwén mooy miskin yetiim jirim mooy ku baayam deetu majeuragul asiir mooy kuñ tëj kaso ba génnee ko ñii nag dañoo sonn am lu leen gaar sunu boroom sant jurit yi ñu bokkal société wala nit ñi ñu bokkal société ni ñii nañu leen dimbali loolu mooy rafetal seen relation xamuloo ni ku feebar ba jóg nga man ko seetiwuloo ko bu la ko waxee bu la ko waxul yëpp jaaxle na ku feebar tëdd yàgg ca feebar ba dugg hôpital génn lu ne mu daj ko ci ordonnance nga mën ko dimbali mën koo seet seetaan ko bu la ko waxee bu la ko waxul yëpp jaaxle na moo tax relation sociale tem bu yaatu la dimbaleente xanaa xamuloo ni hôpitaux yi mënoon nañ fexe ba ñu am ay garab te kenn sonn yomb na tant bi ñi fi toog jege na mille personnes bu ku ne génne woon mille francs léegi un million la buñ ko dugalee ci benn hôpital rek fukki nit mën ca faju tant bi li fi toog jege na mille personnes bu ku ne génne woon mille francs un million de francs la ñu daal di mën a faj ku ñu war a opérer te amul dara ci réew bakkat ne xanaa bu jigéen ñi génne woon li nga ciy déggee mooy góor ñi moom liñ fi nekkee mooy laay ju ma tudd ñu yeggale ko ak naan ma yàlla na nga gudd fan ma ne bu ngeen continuer ci noonu di du ma gudd fan man waaw waaw xam nga gis nga li ñuy wax nii dañ koy wax mu mel ne léeb waaye am na ñaan yoo xam ni doo ko am mukk tànk génne woo am na am na ñaan yoo xam ni waxi kese du tax ñu ñaanal la ko te kat sëriñ si juumuñu ci yonent bi lañ ko jële benn saxaaba rek moo am yonent bi julli guddi lëmm naafila ba fajar mu ne yàlla boo nangoo tuyaaba ji may ko Ousmane benn saaba rek ko am xam nga lu ko ko jox finance finance xaswatu tabook la ñu jëm amuñu kàttan mu ne yonent bi lan mooy doy mu ne ko nàngam mu ne ko ñaaram a ngi nii kooku bu dencoon am amam ba keroog lislaam ay am gàcce waaye la fekk siggal na lislaam yonent bi kàbbar ca gannaaw geewe di julli ba fajar mu ne allahuma aati l ajra li osmaana yàlla maa ngi lay ñaan tuyaaba ji bokk nangoo rek jox ko Ousmane ci saasira jibril ni yaay yi ni cëpp ni ko yàlla nee na nangu na jaamu yàlla gi nga jaamu yàlla naafila gi d'accord na transité ne yool bi def na ko ci compte Ousmane nee ko yowmal qiyaamati dana duggal janna yóbbaale soixante-dix mille personnes yu waroon dem safara yàlla nañ ca bokk man dafa fa jaar def ngir yàlla fa jaar te jëkkoon na def beneen bu gën a kéemtaane moom Seydina Ousmane dafa yónnee ñu jëndale ko marchandise ñëw sippi ko ci buntu jàkka ji saaba yi ku génn ne ah lii de ab dund la gis ku ne fay naa fukki dërëm mu ni ko gis naa ko la ëpp njëkk keneen li fay naa téeméer mu ne ko gis naa ko lépp njëkk nga ne kon bàyyi naa mënumaa jënd bi nga daaneelee mu ne li nga waxaale anamu nga ne mi ngi nii mu ne baax na su